الله السميع العليم من الشيطان الرجيم xamante ne moom la ñuy tuddee féministe jigéen ñi bu ne ndax bokk ci l'islam bokk terewul nga bokk ci benn kuréel fekk mu nekk ci cadre islam masalan da ngay dégg ci jamono ñuy wax naan ne jarul ngay bokk ci tariqa da nga rek nga muslim masalan boo demee ci salaf ibnu abdul bar toppul kenn yonente bi la topp te pourtant ci mazhab malik la bokkoon kon bokk ci mazhab malik islam réew bokk ci kuréel loolu dara nekk parce yàlla ba mu waxee ni innal muslimina jullit joxe kere teeram dafa wëlbati moom yàlla al muhajirina wal ansar baya nga mm. ne ma jëmmal laa ko ci ci tariqa tijaani ci laa ko loolu dara nekk ci kon li ma bëgg a wax foofu mooy ne bokk ci kuréel en tant loolu dara nekk ci kon su fekkee ne association eh, e e yi association yi ñuy tudd féministe ak yu mel noonu bu dee ne yàlla xamante ne moom mooy seen article yi d'accord mm. pour doxal seen agenda wuutewul ak l'islam kon la jàpp waaye su fekkee ne nag ñoom dañ ca dugg na dugal ci loo xamante ne dafay xeex lislaam wala dafay dajji ak ay lislaam pour wax bi maanaam bépp kuréel boo xamante ne dafay wuuteeg wooteeg lislaam bu ca wax waaye bépp kuréel boo xamante ne méngoo na ak wootee lislaam bu wax ci pour gàttal kon nekkul féministe waaye boo leen association bu jeex bépp association même buñ ne waxee tarika bii daganul nga bokk ci tariqa boobu madhab bi dañuy tere aj daganul nga bokk ci tariqa kon lépp luy kuréel wuute naa ko wooteeg lislaam ak jàngale daganul nga bokk ci gàttal dinañ ko war jëkkër mu ne dañuy wax naan jëkkër bu gërëmee jabar mu ne ndax jabar bu gërëmee jëkkër yeneen jëkk alayhi salaam la yàlla mu leeral la ñu mbooleem loo xamante ne suñu wàllu diine aju na ca moom moo wax ne ak kuy jabar ci jëkkër ak kuy jabar ci jëkkër mooy na ko dundal na ko dëkkal na ko dëkkoo na ko solal kon yii la wax na ko dundal dundal gi añ la ak reer sa na ko dëkkal mooy kër loo xamante ne mën na koo protéger ci tàngoor ak ci seddaay hmm. na ko dëkk mooy day sëy ak ci lan ndax loolu ci la ko hmm. na koy wattu loolu ñu ne ko ak tabaski bu ko ci jëndalee wala korite wala tabaski bu ko ci jëndalee bu ko digalee mu defal su ma ko bëggee dara mu mën a dara te jëkkëram bu fekkee ne mere na ko mu fexe ba jëkkëram gërëm ko te jëkkëram bu gërëmee jëkkëram bu ko gërëmee bu boobaa yàlla dina ko teralee aljanna ayman imraati képp kuy jigéen jëkkëram mere ko mu ne ko wutu dugg aljanna waaye képp kuy jigéen jëkkëram kontaan ci moom mu ne aljanna lay kon leneen tamit moo ñu wax kon la ñuy seet ndax ku góor gi ndax gërëm na jabar bi wala gërëm waaye ndax jabar bi gërëm na jëkkër parce que jigéen gërëm na leeral na dina ko ku gërëm jëkkër donc parce que dafa wax ne dem naa ca safara gis leen yéen jigéen ñi waaye yéen a ko gën a bëri ñu ne lan moo tax mu ne yàqu na lâché bu ngeen gërëm bu ngeen gërëm jëkkër bi nga xamante ne lu nekk defal na ko jabaram def ko jabaram toogee yow na ma nii def na ma moom yonent baax mu dugal ci saabu bu bëri boo ko defee lu man xaw ma lan la la moo tax pour jabar jëkkër jabar gërëm jëkkëram presque looy wut la dina ko a def waaye nag bés demee yow bu jëkkër bi yow jëkkër nga gis ne lii bu ko defalee sama jabar dana kontaan dana nekku ci bu ko nangulee nii dana kontaan nga nekku ci nga nangu ko loolu dara nekku ci fekk wuutewul ak li yàlla digle parce que jigéen yéen moo ne naaqisaatu l-aqli wal diin am man mu koo man koo man il faut mu dox mu ne mu ñëwee wala mu ne ñaareel ba mu ne gis loo seede foog mu mat ñaar ko yàlla moom kon stigmatisé a wàññi jigéen islam def ko ko ci nag waaye daaba wéñ na wala semaine wéñ na waaye ci nekk ci nekk da muy liggéey bokk kon jigéen dafa wuteeg góor ñoom ñaar du benn seen xalaat mentalité sax du benn seen bu leen buggee def benn ne ñoom ñëpp benn lañu takk ñaari loxo mooy takk tubé mooy takk am na lu yàlla bu ñu góor bu muy xalaatee ak ni muy waxee bi benn waxin bi du benn xalaat bi du benn du benn kon ñoom benn kurana jàmmoo xarit boo demee ci looga xarit la ñu fi mooy jigéen la ñoom ñaar loolu la ñuy firi mooy looga mooy jabar dañuy wax nag xarit na rais mooy jabar président ci looga askan lañu koy defee kon mën nga wax ne fii xarit firiwul sax li ñuy tuddee mooy ànd waaye mën naa fi kon yàlla bind góor ak jigéen ñoom ñaar ñu ànd yonente bi ne al-insa shaqaa'iqu rijaal ni yàlla bindee aadama noonu la bindee hawa ni nga xamante ne noonu la joxee aadama cër noonu la joxee seydina seydatuna hawa cër devoir ya war seydina aadama noonu la amee ya war seydina hawa yàlla yërmande leen sens boobu société boo dem ña koy composé góor la ak ay jigéen même ci diine boo demee ki ñu tuddee Asiya dafa gëmoon Seydina Moussa jullit la woon jigéen jëkkëram ba ni Firaw la gëmuloo Moussa yëfër la kon jigéen dafa am lool demal ci ki ñu tuddee Seydatuna euh, Seydina Nuux soxnaam si moom jullit la woon waaye soxna am da ci luut kon jigéen te loolu am na impact parce que luut jabar ja ba nga xamante ne bokkul ak moom vision li nga lu mu teg jabar ji daj lii moo tax seen so seen projet mën ta sotti moo tax seen dinaa Moussa mu ñaan yàlla gis nga ko soxla sa ba ko yàlla yàlla mu bàyyi ko soxla sa di bañ ko yàgg mu liggéey waaye xoolal ku mel naka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Xadiija moo ci kan moo njëkk a faatu ci lislaam jigéen kan moo njëkk a dugg ci diina ji jigéen yonent bi ba mu taxawee ne yàlla ma yónni ko njëkk a gëm ci li yàlla fi ci kaw mooy Xadija parce que nee na gëmoon naa ko gëmoon naa la dafa yàlla fi lay parce que li moo tax moo dugg ci xamoon naa ban façon su may yar mooy moom la njëkk a kon jigéen dafa bokk ci société ci doxal société rolam moo tax boo demee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doxal administration ñu ñuy bàyyi jigéen ñi ci gannaaw parce jigéen ñi ci kër gi kon yàlla mooy saxal fi ne góor ak ko ñu am alayhi salaatu wasalaam ko chaqaajiku baax mu ñaar fa zayyanu boo gisee nag mu jël ci lu ci nax li muy itil leen mi bay ne ay doomin xar bi moom mi bay ne ay yéen na min xar bi ci nax garaameel bu dee ne benn góor a toog téeméeri jigéen wor ko booy wax dangay wax ne ah ci loxo téeméeru góor wala téeméeru jigéen toog benn góor nekk ci seen biir booy bu ñëwee loo wax ne salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum antum ngay wax parce que benn góor bi nekk seen biir maanaam ay jigéen wala ay jigéen bu ñu taxaw ak góor booy jëfandikoo te da ngay jëfandikoo toogee sax comme imagine na ne malaayka ci seen biir toog rek asalaamaaleykum mooy wax moo tax yàlla utilisé fu ñu bay la waaye jigéen ñu ngi ci parce que jigéen ñi danañu taal góor yi tam danañu defar defar sa yaram nag lislaam bañ sa sa yaram nit war na di taal di rafetal sa xol ci watin waaye boobu ñooy jënd bi sallallahu alayhi wa sallam karaw ma nga yonent bi ne ko demal nga seetal sa bopp ba pare nga doog a ñëw mu dem bi nee na mu la yàlla dénkee garab dañ ko war a ormal di kon di sa bopp di koy diw loolu ko àndee sa yaram ko sa yaram bi nga di koy diw tàmm loolu am na lu ci kii nga defar ko ba baax boros wala am nga posé ko ci jamono dara nekk ngay diw tus ngal sax nga sol yére bu rafet dara bu rafet dara ne ko ci kon sanse ci lislaam dara ne ko ci ni mu dagganee balaa ko ci ko góor loolu la balaa ko ci ku jigéen moo tax yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ngeen amee ay doom yu jigéen na ngeen leen di jëndal lu ñuy sanse xale bu jigéen doom bu jigéen waaw kon ne solal jëndal ay yére yu baax ay lal yu baax même ay ceen sax ak ay jaaw di ko koy jëndal yent bi ne da leen koy jëndal te doom yu jigéen

muy buuda muy buuda buuda dara nekk ci di hmm. tus ngelu dara nekk ci yi xew mooy maykat yi xew ci jamono hmm. loolu dara nekk ci jigéen bu koy def firul la dafa bëgg a dund parce que yàlla joxe digal fa zayyam mën naa taaw surtout nag koo xamante ne jëkkër bi yonente bi tere mooy nga di koy def pour attirer góor ñoo xamante ne seen loolu ñoom loolu mu hmm. te yonente bi tere ne jigéen buy génn war a ñëw parfum parce que dafay attirer góor ñi bu boobaa xel àjjana nee na boo xëy boo xëy boo xëy sax sax waaw ñu naan dañu ci moom mu ne itam di tere waaye ci sa biir kër ci sa biir njaboot ci sa biir yaa sa biir ci kër boobaa noo taamu rek dara nekk bi ñu tere ci lislaam mooy di déformé mbindi di yàlla mooy dem hôpital di defaraat sa bakkan di defaraat sa kii yooyu noonu jamono sa yi ñuy poosé hmm. yi ñuy poosé islam tere ko xaraamal yi ñuy poosé waaw yooyu yëpp islam parce que yi ñuy dugal fii day doon ko war a def dafa mel comme émail ak mèche yooyu ku war a jàpp ku war a sànq mën koo utiliser waaye tey jii nii bu dee jigéen boo xam ne julli na tisbaar ne fii laay def ci maay bu ñëwee takkusaan ba dindi ko fomp jàpp julli lislaam haram bu dee itam ñu ci ko ci bopp bi dem ñëwaat dindi ko dem muy sax jotewul dara nekku ci kon bu dee yi ñuy monte yi ñuy poose dara nekku ci même yi nga xamante ne moom la poose ci dënn yi ak yi ñuy poose waaw mu laaj bu dee luy lox nga dégg li may wax borom xam ne bu i luy lor parce que yàlla na fa laa dugg ay déglu la tax bu dee lu ci mbóot la waa di ko waaye bu dee loo xamante ne lor moom ci lañuy wax kon même yi ñuy posé sax mu gën a wéy ci a yaatu dara ci waaye li ci nekk mooy ne li nga ciy parce que am na koo xamante ne dina la gisee noonu ñëw golo si waaye dafa ñëw fa fasawu ci jabar parce que ba mu gisee loolu tànk indi ci kër gi ñu dugg ci mu commencé di rocc di ba mu tegee yëpp gisal na ko gisul mu ne ko dama gisoon taw bi bokk na fi kon bu dee yooyu baaxul parce que waa da ngay nax la déet ko xam ne na jëkkëram nekk nekk ak moom ci biir këram muy génne am yu mu yokk yu mu poosé loolu ki dem bi faatu na ndax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doomam bu jigéen mooy Zeynab keroog ba mu faatu dem koo sàng ba mu set puudar ko gis ngeen ko nit wàllu ko alayhi salaatu wa salaam dem na bi doomam bu jigéen faatu mu puudar ko tus ko kon bu dee ko dem bi faatu kon kuy dund kon sii la yàlla may na ci autorisation góor mën na ko def mm. jigéen mën na ko def mm. mu waxoon la illa kan mooy amda illa mooy ni noonu alquran fi koy xamee mooy ahlul quran ahlullahi wa xasatu mm. parce que kalimatu aduwu mooy safaanoo kalimatu waliyu laa tattaxidu aduwi wa aduwum bu la ne wali mooy ñoñ aduw mooy noonu kon bu waxee ne amda allahi fii moom mooy ñi noonoo alquran parce que laa tax li hada alquran hmm. ci xadit ba yonte bi leeral ko ne ñooñu yàlla yi mooy nitu alquran hmm. kon loolu lu muy firi automatiquement mooy noonu yàlla yi 有了。 يعلم انه يخفى في عملهم الا ذكر الله الله اعلم والعالم والمتعلم كن فوق يلا مو يفحل يبدو loo fi gis yàlla nañ na ba mu des tudd yàlla ya te wax nga tudd yàlla mooy koy ñëw kii woo kii ay dina xel wal wa wa maa waalaahu ak li niroo moom ñu ne mooy sax wala aali wala mutaalim ak kii jàng alquran ak koy jàng kon bu fekkee ne ci jamono jëf la ñoo xamante ne dañuy dungoo yu alquran su ma teg ci nag istixaaba xam nga tey jii ne boo demee ci kër ne la jabar ji jëkkër ji joxe na dépense def na lépp waaye mu ñëw laaj ko laaj ko ndóol boo ko ñëwee ñu ndóol da ne jabar ji jubul kon ku yàlla defal lépp mu wëlbati ku ne jaamu ma nga bañ a daw jaamu ma kalimatul istiqaama ko muy tàmbalee mooy fi yàlla de nga waxee ne yàlla moom ñu la digal ngay julli def ko istiqaama de joxeel azaka nga def ko damal aji nga def ko wóoral ko waaye boo ne yàlla moom te def loo istiqaama loo julli alayhi salaatu wasalaam nekkul amantu billah wastaqim ba waaj a ci moom ne ko yaa rasulallah mu ne ko mu ne ko li ngay jàngale bari na de baax na waaye ci biir loolu nag man sama xel mi day mën a jàpp ne ma bëggoon nga gàttalal ma résimal ma diina ci loo xamante ne dinaa ci mën a jàpp saa yi soo xamante ne mun naa def rek ma teewaat ci mu ne ko kul amantu wax nañu gëm naa yàlla boo paree nag nga jóg dem ci kaw bul nag di wax nga gis ci kaw wala jàmm dañ ñu jaay wax ne yàlla dama ay moom kii ne jëng loolu moo fi nekk xëy na sa ñaar sax waaye jubal ci jamono parce que nit ñi ñoo la ci doon bàyyi essayé ko rek jël sa oto di dem dem ci yoon bi tali bi baaw dina xam ci tali oto bi crevé gis nga ko xam-xam la ci kii hmm. police bi romb la ne la lii ak lii nga jox ko ak ñoom dina ko def fekk yëkkati ko dara def ci loxo du gën ba nga dugg ci gën mais yàlla dañuy jëkkal rek dafa jafe ci jamono bi ak istiqaam alayhi salaatu wasalaam ne chayabat yi mënu ko xabaar buñ ko waxee ne ko yeneen bi yaa rasulallah yaa ngi bi ñaaw de mais xam nga xam gannaaw ba ñu doone ay jullit ak islaam yéen a jubal même boo demee ci kaani bi maanaam juif bi at ndax foofu la tàmbalee foofu la ñu war a jiitu alayhi salaatu wasalaam wax ne alxuraatu salaat nee na juif yi ñett lañ bu yomal qiyaama ci jotee ñaar ñi ñëpp safara lañ ñëpp mu ne juif ñii at mu ne ñoom ñëpp ñaar ñett lañ ñaar safara lañ jëm kenn ki koy dugal kon li muy firi mooy la juif yi li ci gën a bari jahannam moo taxoon ñoom borom xam-xam yi koy bañ ñoom Imaam Maalik ñu tëj ko ci kaso ñoom ñëpp dañ doon bañ manoo leen bu dee ñoom ñi looy dëgg avocat avocat bu arab ya avocat boo koy nii fan lañ bokk ci magistrat ya. lan lay fi al fuqaha al fuqaha mooy hmm. faqi avocat yi ngay dégg yëpp lu arab ya ci arab la mooy faqi moo tax nga ne am naa problème nga xaaral ma jël avocat mooy xaaral ma jël faqi mooy koo xamante ne xam na nga xamante ne lay wax fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar lii nga xam ñi ko amul ci droit ñi ko amul ci droit ci sori parce que boobu war jàll comme ñi nga xamante ne noonu lañuy demee tey ñi nga am problème sa kër nga dem laaj faqih mooy borom xam simi daal nga dem laaj bu topp avocat yi maanaam gis na programme parce que bu Sénégal ñu ko coupé rek bu faral bu faral rek lañ ko coupé yenn yi rek la ñuy yokk yi ñu ne waaye ndax mooy fondamental

Seydina Ali bi ko fal ñëw na mu ko dànk ka amul benn yàlla problème yàqu mu ne ko maa moom yére bi mu ne ko man maa ko ñoom ñaar benn tribunal kan moo fal gaali Seydina Ali ba ñu yegsee ñoom ñaar ñu toog ñu bëgg a yëgal Seydina Ali ba en tant que amirul mu'minin xalifa mu ne ko déedéet yaa ko moom ci suuf kaay bi am na fu toog ci kaw seen naa di toog ci suuf kii nga xamante ne da mooy yow ñu toog ci suuf ñoom ñaar ñu jàkkaar mu ne ko an sa seede yow seen naa mu ne ko sama doom bi xasan man damaa seede may wax ni am na yéene ba ma ne ko sa doom man laa seede xam nga ragal dafay tegu ci da ngay gis ci jamono kaay boo xamante ne dafay seet président bi lu mu defal même bu ko laaj loolu yàlla di demal moom yàlla xaalis bi ne ko kii la seen laa hmm. seen ko naaw ci seen mu ne ko naan bàyyi na ko alal mu hmm. mu am ci te moom ne ci war mooy ci sa seen comme indiwul seen ne ko yow kal ko moom yëre yow mu ne man seen mu ne ko ko ne mu ne sa seen mu ne ko aw ma seen hmm. parce que nga ne seen naa seen naa xasan matul en tant que justice parce que li a a ba ñu pare yahud bi ne kii Seydina Ali moo ko fal suuf may wax ma di koy jokkal kon lii dëgg la dal di dem ci kàddu bi dal di taxaw ne yére bi moom keroog bi ngay jógee ci euh, wakaatu jaman ba ñuy dem damaa topp arme lu rot rek ma fa lu rote ma fa li bokk ci li ma foon waaye waaye maa ngi seede ci seen kanam ne ashhadu an laa ilaaha illallaah yére bi moom moo ko waaye moo ko seen naa seen naa merewul xaadim folliwu ko sansana ko hmm. lii la ñu xam ci ko daan ci lislaam hmm. moo tax yonent bi sala sala ko ne Jésus ñett façon lañu hmm. yowmal qiyaamati bu jotee ñaar ñi ñëpp jaanama lañ ca mu ne Jésus bu njëkk bi mooy gis na ne lii du dëgg mu àtte ko bi maanaam kontu dëgg kii moomul dëgg mu jël dëgg bi jox ko kon kii dafa dem jàpp wante kooku lii xamul ni mu demee mu àtte ni ko neexee ne mu ne ñetteel ba mooy ki nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy problème bi après xool dégg bi nag àtte ko nag ci confiance mu ne kooku moom aljanna la ci kon jéem war na bàyyi xel. la jox ko waa waa boo xamante ne mooy bu yàlla parce que sax ñoom ñooy àtt sa président ñoom ñooy àtt sa buur yi war a jël këru jàmbur jox ko keneen war nga ko teg ci leer parce que téere yi ñuy jox la jëlee ci terminal wala de doom yi ñuy jox la jëlee ci terminal lépp lu ñuy jox la jëlee terminal terminal moo war a ko def fii nii la bés boo ko tegulee ci dëgg nag bu waa yow man yàlla xamuloo nga àtte safara mu wóor na ne mooy dégg nga bàyyi dégg ba àtte leneen safara ngay jëm ñoom ñoo gën a métti lañ bugal mooy soxla parce que li ko waral mooy nga jël nag ñaari façon naa doon ger ci alal mën naa doon ger ci pouvoir maanaam ñu yokkal la ci alal yëpp hmm. boo koy seet te àtte lu dul dëgg bu alayhi salaatu wasalaam mu ne képp kuy àtte xaadi même juif buy àtte fii ci àdduna bu yombal qiyaamati jotee bu génnee ci bàmmeel dañ koy ceene ma ñoo ceene bi ñoom ñooy ceene wala dañu takkalaay la am na lu gën a torox loolu jël ko tax ko dem léegi loolu lan moo la koy xaadi moo koy jóge wala de dafa ñu ni yéen a ngi dégg xibaar bi amee mm. Donald Trump mm. wala de ñu war ko àtte boo koy amee tubaab yi wute lañu Donald Trump ñu war ko àtte mm. en tant que nekkoon ancien président ci Amérique am doole am lu mu duggoon ci jamono ba muy nekk président bu ko tey jii nii ñu ngi koy topp li ñuy ñaan avocat bi xam la ñuy ñaan moo ñu mën ko dàkkal la parce que xaadim yi yëkkati na tuuma bi ñu mën ko ci kaw xam nga ko tuuma ñu war ko te képp ku ñu tuumaal ba xaadim yëkkati kàddu tuumaal la ko rek dañ la war a tax avocat yi lan lañuy ñaan ci jamono yi pour ñu ko dàggal la kon yow en tant que ko nga xam ne yàlla fekk góor ci biir ay doom ci biir ay nawle nga ko nga ko def ci ko def ci moo tax alayhi salaatu salaam yow man ki am jël yi bu ñëwee yow man ki am dañ leen di tàggal la ndax dañ dëgg bépp kaadi bi ma doon nga indi ko doon bañ ci jamono waaw Muawiya Iyaas ibnu Muawiya loolu tax mu bañ ko xalifa bi woo na woo ñetti kàngam ci borom xam-xam yi pour ñoom ñu ci kuy doon kànni boobu sax xaw na la yéen daf leen wax ne yéen a xam kon yéen a war a àtte xam nangu leen àtte ñu mi jox ko mu xamul ñi xam da ci am moo tax bu demee ba mu woo ko ne ko ki ci nar a du doon ko jóg mën naa ko doon teel dinañ ko faj. Hmm. rek lañ koy tax kaadiyaat dafa bañ. baleen bu booboo ñoom ñetti borom xam ne dafa waat ne man mënuma nekk kaadi hmm. dafa yeewoo te ñoom ñaar ñett ñi ñaar ñi seede nañ ne moom dafa laaj yeewu kaadi du jàng kese de hmm. dafa laaj yeewu

ñoo xew ma ko est ce que doo dem seeti waat est ce que doo dem seeti bi hmm. xam ndax balaa ànd est ce que bàyyi ko am foofu moom moo ko kii waaye ñu départ dem mu moto hmm. moom ci wetti hmm. dem ba mu yàgg kaani bi nag waaye est ce que waa ji yëg na wala yëg ngir bañ ko rek gaa yi ne ah yaa yéen na yow yaa ma ne ko waat naa yaa ma ci nekk immaa dama fen ci waat ne matuma kaa de hmm. te bu boobaa nag ku xasa fen kaa de damaa waat te dama waat lu dëgg mooy matuma kaa de man mat naa kaa de ma mat ma waat ne matuma kaa de hmm. kon bu boobaa te bu boobaa nag comme fen naa kon pour wala ne ñoom dañ doon bañ sax nga doon kaani parce que li ci yonente wax hmm. képp kuy kaani di àtte diggante ñaar bu yombal xiyaamati jotee a dëgër teg ñëw teg hmm. léegi nag sa màndute bi mooy ñëw tekki la hmm. génne manoon bi sa màndute kon bu dee ko am kaani boo xamante ne màndute noonu koy watatee rek mu dem ci sa kon ku yee boobu bu naxasee ba jox nga war a giser war nañ ci jàpp léegoo léegi nag ñu yemale ko ca xaadiya du xaadiya kese ne borom dëkk borom nuñ koy tuddee alkaadi mooy alkaadi ku ay nagam ay nag bu ci sa tool ko commandant wala commissaire police ñooñu itam ñoom ñoo président bu fekkee ne kaani bi mënul alkaali bi mënul lijjanti boo demee seen yàlla dafa ànd l'islam bi dañ ci teel a dugg xam te teel ko pratique moo tax problème bu xewee dañu woo borom dëkk bu réglé wul ñu dem ci imam wala ñu woo imam bu réglé ñu dem ci borom dëkk kilifa yëpp daje bu réglé nag ñu door a ci fii incha allah wala ci ci police ñooñu bu ci kaw dossier bi war a yegg ci kaw wala ci tribunal bi nga ne mooy nekk bu fekkee ne man réglé ci tribunal régional ñu yóbbu ko fa yeneen tribunal yi kon pour wóor la ne borom dëkk dafa war a mën di àtte di hmm. imaam itam ci dafa war a mën moom bokk na ci ñu naan bu ñu joxee kàddu ñu respecté ko naka noonu itam ci biir kër gi yaay kilifa yaay borom kër gi say jabar sa ñaari jabar ba sana am problème yaa war a atte lu nekk yaa war a atte fexe ko teg ko ci maam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam suñu référence la Aïcha radiyallahu anha nekk soxnaam yonente bi ñuy tuddee Umu Salama nekk soxnaam yonente ñaar kon ay soxna lañ ki ñuy tuddee Ummu Salama ñu may si ko ndawal gis na yonent dafa bëgg te ndawal ci jamono ko ak ko ndawal bi yët ko yonent parce que ci ay ay si am na droit nga togg may sa jëkkër ku dul sa nga ko may mu togg du ay waaye su ne yonent bi ci boole xale bi ba mu yegg ak bool bi ne sama yaay Umu Salama ne naa la jox bool yaa Rasulallah rek firaa ngi ñëw ci Aïcha hmm. suñu yaay bu baax jooju daal di jël suñu bool bi benn bool daal ci suñu la ne toj bool ba la ne toj hmm. ci tabax yi kon problème am na hmm. ak ñu tudd moo toj sama ñoom du ñëw wala de lu tax nga yónnee si ci sa baay lu ci sa yoon il faut problème mu ne bu dee ndawal li ak diggante ñaari jabar ci nekk nga teg ko place am jox bi ci say doom sax yonente bi ne nag tawul laa wax dëgg bay naa say doom sax bu ñu amee problème yaa war a tracé heure boobu noonu fexeel bi man waaye pour seet ki nga gën a bëgg wala jox masala nga faral ko day nekk ñu teg ko ci yow ko ilaa te xel léegi société la say apport rek nga ñu baax boo yéegee ci oto bi yow sa bër bi yow yaay kaani say pajaas mooy say client bu ñu amee yaa war a tracé yéen moom noonu koy tracé teg ko ci yoon ci lépp nag jeex kon inna alladina qaalu rabbuna allah summa staqaamu al istiqaama ci ñëpp la ko yàlla soxla la ko dalee ci suuf di dema dem ba kaw pour wóor la ne itam li ñuy tuddee di bi kenn hmm. waru koo fooye xaadi bi nag fooyee ba ñu fooyee hmm. bu oyofee ba ñu fooyee dina am part de responsabilité yomal qiyaamati de waaye dina delluwaat nag ci li yàlla wax ci gannaaw bi arina allazayni adallana hmm. minal jinni wal insi parce que wax na la dem bëri na nit ku def erreur nit ko def bëri na koo ne man diw sànga moo ko dugal ci lii gis nga dugal moom la ca dugal taxul sa da nga gàddu sa bos moom moo ko itam dina tax alayhi na ku def lu ku def lu baax da nga ci am tiyaabu boo taxee def ko da nga am moom te du wàññi tiyaabu dara waaye ku def lu bon xëcc ci keneen ba keneen def ko da am bàkkaar ka nga xamante ne moom nga def loolu dina am bàkkaar comme yow te du wàññi ci bàkkaar bi kon ki la def loolu yow ci sa bopp sa koyof moom moo ko waral yàlla de dana xisaab waaye itam dana xamante ne mën a def hmm. kon al istiqaama bés bu amee ci mooy équilibre bu amee ci hmm. mu ne ñooñu nag fatanazzalu alayhimul malaika hmm. ne malaayka yi danañ wàcc ci seen kaw boo gisee mu ne malaayka am na ñoo xam yërmande la ñuy indi hmm. am na ñoo xamante ne mbugal la ñuy indi masalan ndox dana wax ne asamaan baa ngi wàccee ndox xiiwal la wala du waaye am na ci ñoo xamante ne waaye li gën a bëri ci ndox xiiwal la malaayka li ci gën a bëri fu ñu wàcc rek yërmande la moo tax yarul muy daal di dëgëral ne malaaykatu rahma bu ne malaayka rek kon malaayka yërmande moo tax comme boo waxee ndox rek ñëpp xam na automatiquement ndox moom yërmande la boo ne malayka rek moom malayka yi bari moo tax muy wax tatanazzalu danañu wàcc alayhim ci seen kaw al malaayikatu ñi nga xamante ne ñoom ñooy malayka yi malayka yërmande gis nga bés boo xamante ne lépp lépp ci yoon bu dee sa kër kër nga yërmande ko fa sa kër nga maam ci say biir jabar maam ci say biir doom mbir yëpp nga teg ko ci yoon ngi toog nga ne ko yaay toog rasulillahi toog na ñu indil ko ñaari te ñu ci ñaari ñaari bokkal ci saxaaba Bilaal ibnu Rabaah hmm. bokkal na ci saxaaba Abu Zarin al Ghafari bokkal na ci biir saxaaba hmm. ñu indi la ci kanam yàlla bu war leen àtt feebu daw xam nga dem dafa laajte ñu wax hmm. lan la Bilaal ne def ma saal lan mooy saal yàpp sawda te mu ne nag ne tey rek la ko def yàpp na ku waxee leen wax rek Abu Zar bin Ghafari weddi ko rasulillahi sànni ci kanam ñëpp mu ne ko innaka xam kon nekkul foofu war a di def kenn xam bu boobaa bu demaatee histoire bi dafay gën a ko sa kër dañ ko war a transformé ko ni ko ko defee rek dina defee foo gis mu am lu rek xamal ne léegi-léegi moo fa maanaam balaa nga xamante ne moom la ñuy balance balaa la balance boo gisee benn balaa bi daal coow la bëri rek xamal ne dafa nekk waaye ñoom ñaar bu ñu defee nii coow am gis nga visite bu amee ci kër coow nga ba yente way loolu ko ci loolu la ko fere euh, la dem na ci moom jéggali ne ko yow boobu nga jël sa tànk bi teg ko ci sama kaw bopp gis nga ko bës ko ci kaw suuf ci lu dul dëgg parce que léegoo nag nga foog ne diw sanga dafa far far ci dëgg la dangay am say jabar ci sa biir kër am koo xamante ne toujours moom mooy tooñ toujours moom mooy indi histoire léegi nag yow boo ñëwee nag ànduloo moom ci loolu mu ne def maa tontu deful tontu boo ñëwee ànd ak parce que moom la ñu toll def danga ànd ak dëgg nga ànd ak réew mi lañu xam te tax ci am erreur bu bëri bëri foofu noonu jëkkër bi nekkul ne dafa faral ci jabar ji déedéet waaye jabar bi moo nekk ci dëgg mu faral di dëgg ko bu dee dëkk la alkaali yemale waa dëkk ba yëpp waa village ba yëpp mu yemale leen bu dee chef de quartier bi mu yemale waa koñ ba yëpp kenn ku ci nekkul ci dëgg mu ne la yow nekkul ci dëgg bu boobaa quartier ba dana am daal bu fekkee ne président bi nag ci réew bu dee ne dafa teg bopp ci yoon coow waaye gis nga fépp foo xamante ne jubadi am na fa rek foofu coow kenn ku jubadi am coow dina baax société bu jubadi am coow dina baax réew moo xamante ne dëkk boo xamante ne jubadi am jub amu fa jubadi jubadi boo xam ne rek réew ma itam nag parce que su fekkee ne kii moo tooñ borom nag moo tooñ boobu la parce que góor bu nangoo fekkee fu ñuy toroxalee borom dëkk góor da nga gis na koo xamante ne ay man sama defee ko yàlla def na ne leen saa yi soo fekkee am na at wala dina bi waa dëkk ñaari nit ñaari nit ñooñu nga fekkee ko nga xam fi dëkk féete nga ne dama ciy ndóotu booy ne yow ak yàlla am yàlla yàlla santaane wul noonu na nootu foofu léeg maanaam sama yoon nekk ci da nga war a seet dëgg bi féete nga doole moo tax góor bu fekkee fu ñuy fu ñuy toroxalee dëkk góor fu wala jullit moom wax ko jullit rek waaye ko jullit moom réew mi comme góor la dégg waaye jullit ak góor man la benn daanaka dañu fi jaaxle xaw fu mooy ragal moom mooy ñëw ci kanam al mooy di am njàqare ci li paase mu ne ñaari yow ñaari yow di am maanaam képp koo xamante ne jubal la looy ragal lan la wax loo xam def loo xam moo tëj lu wër wala koo xam ne sa gannaaw bandam la neexee nelaw nu la neexee waaye yaa def jubati bi yaa sax bu nekkul la sa naa ne lu yëngatu rek nga ne man la wala de doo am dàq xam nga bukki ba demee kër gaay lekk doom bi daw dem waat dem gaay dama ñëw dàqee wala gis ma ko yóotu génn ba rek génn ba dàq rek mu daw rek ci dem dugg ci biir bukki moromu bukki bi nee na gaay ne nee na ñëpp nañ dagg seen génn hmm. moom su fekkee te daggoo sa génn nag da nga ngay ne di doog a doog di doog a doog ba yegg seen génn hmm. ban la ci xamul hmm. xam ne daal ne xàmmewu rek daw sa bukki moo xam ne nii gis nga ki nekk ci jub xëy na mu daal lan moo tax kii sàcc bu gisee xale sa tiit rajo ko lu baax di dafa defoon sàcc ñoom kon du maanaam xel mu daal li la koy may mooy waaye gis nga boo jub ne sa xel sa xel mu daal ko tax mu ne te bu ngay jubee allah taxaafu wala taxzanu bu leen tiit bu leen ci biir jub loolu wa abshiru bil jannati ñu ngi leen di bégal aljanna allati aljanna nga xam ne kuntum nekkoon ngeen mu amoon moo tax xaali wu mu jëm ci aljanna kilifa bu jub mu jëm ci mu ne ku yàlla jox kilifteef man waliya ko yëpp ku yàlla jox kilifteef ci sama xel léeg-léeg ba lu mu tuuti tuuti am ci benn bés màgg ñaari at ba ci am te pourtant moo gën a barke ñoom Marwan ñoom Muawiya ñoom ñoom ñoo ko gën a yàq ba ci ñoo am lu bari moom ñaari at la ci am te pourtant li mu marqué ci bari mu te ni ko war ni ko war gis nga maam bu amee ci réew rek hmm. réew moom moom dafay am jàmm léppay mën a dox gis nga réew boo xamante ne justice bi jubul borom société est-ce que danañ ko dañ ñëpp dañuy wax ne parce que foofu ma amee problème dañ may toog toog xam kenn boo xamante ne kilifa ba jubul est-ce que dañ fa dem nekk boo koy dund boo ko nekkee sa doo ko toog hmm. parce que li ko waral mooy ne doo fa mën a am jàmm heure bu nekk yaa ngi yaakaar ne noonu la àdduna bi demee fépp foo xamante ne jub amu fa jàmm amu fa waaye fépp foo xamante ne jub amu fa jàmm amu fa moo tax yàlla ne ko wax ci yàlla ànd di ko yàlla mu ne ni aljanna yéen ñu nga xamante ne jubalal ngeen ci la leen ne yàlla day mu ne nax na ñun mooy yàlla wala nax na moom malaayka yi aw ni yàlla الدنيا ليس هي في الحياة الدنيا في جهنم وفي الآخرة أجعل أنا يلاني نمت ما عليه كنجي يوميجو كي يلا كنجي نك إذا لك طبعا كي يلا كنجي ولا ملايكة ينولا يكنجي كم ملايكة يكنجي نك كراو كم ملايكة ينولا أنت كنجي نك جبال كنجي نك loolu boo ko di def balaa ngay yaakaar dinañ def kon malaaka yi ñu àndal kay yéen nag moo tax ne nax ñun aw ya ñu ngay seen ñoom ñu ngay seen wax àndaloo li xayaat na nekk si àdduna ko fi aaxirat ko ak aaxirat yi ko yéen seen kilifa bu maan bu yomal bi am jotee dékkee dékkee mais li nga xewee fii ci àdduna moo tax koy jiitu ولكم نكن لن فيها جميع الاخر الاخر ولا وين لو أنا وين الجنة دار الاخر يلا وي وقت الاخر اللي تجيب الجنة بس كي بندو اللي كده فهم أنا أنا مرحلة الآخرة أنا مرحلة الدنيا أنا مرحلة البرزخ أنا مرحلة القيامة قيامة تفهم معايا wasila miida yëpp dafa yàqu maraaxil fay mujjee ci dunduy nit ki mooy dugg aljanna moo tax ñu tuddee ko al aaxira bii fii nii ñu nekk nii dafa gàtt moo tax ñu tuddee ko dunya fii ñu nekk nii dafa gàtt moo tax ñu tuddee ko mooy mujjati étape nit ki nag moo tax ñu tuddee ko al aaxira kon bu fii aaxira di mu al jotee wala bu fii maa tashtahi fii mooy ci al aaxira kon aljanna la ci partido ku mel Ba mu teg ci réew mi yëpp ba demee ba ñëw dafa ne afawtu bu rafet boobu ak xol bu yaatu boobu moom nee na ku yàlla may dëgg moo fay yëg naka noonu ku mën a mu dëgg moo fay yëg il faut nga am xol xamante ne sa yéene wala bu baax fexe na yow ci sa bopp boole ko ci say xarit أنا أقول لجينا من الدين إلى الواحد رابعة العالم بنك واحد يكون من دين الله من الدين الحق يقول نحن بن شيطان من بروك يلا خجت له ما يبين motax da ngay dem bi yëg foo xamante ne doomu aadama bañee la moom maanaam bañ dem nekku ci fekk wax ñu baax ñu foofu ñu dem bi yëg nga xamante ne amul kenn ku ñu bañ ci kaw suuf Alhaji Omar am na ko wàññi Alhaji Abdoulaye Alhaji Abdoulaye si da baax na la taala ba mu ñëw seet ko dafa amuloo wala xamaloo mu ne mbaax gi nga xamante ne moom la seet ci si Abdoulaye si da baax hmm. mooy amuloo maanaam waxul ne amul ñu ko bañ de hmm. waaye moo bañul kenn ndax yow bu ko gën a bañ ñu xam ne yow dañ koo bañ yow moom la yow dañ def jox cër doomam bu baax mu koy nekk gis na suñu bay si mu koy nekk ñu nekk ci daara def mu koy nekk mu ne am na koo xam ne dafa doon wax ci moom lu ñaaw ñu ñëw wax ko ko moom la joxe mu ne ñoom sa ñu doon bay ne loolu pour lan kii li muy wax ci sa kaw li muy yëkkati ci sa kaw der nga yëkkati ñu ko koy jox foofu la nit ku baax di def yëkkati وإنما دمبي amul ko bañ ko taw ki la gën a yéene safar sa muy musiba yow mi yow ak gën a yéene jàmm kooku la ñuy tuddee ko baax moo tax mu ne la wa maa yu lakkaaxa du fa yegg nag danaa loolu mu ko am illa alladina sabaru ñi nga xamante ne seen xol dafa yaatu mën a muñ wa maa yu lakkaaxa du fa yegg illa lu xasin amin ñu ko baax ci al islam defe naa ñi nga xamante ne dafa ci biir askan déedéet boo ko ñëwoon foofu moom am na lu ko yëngu wala waaye naka la def moo tax góor bu baax boo ñëwoon la leen wax dëkk parce que xoolal en tant que kilifa li wóor yëpp sa jamono la benn waaye ñu lu nekk wax ko ci jàkkaarloo yow dina ko yow naka la def waaye ka ko doon wax loolu moom di koy attaqué moom mujjee di koy tàggu balaa muy jóg ci toogaay moo tax yàlla inna alladina sabaru gis nga mën mën a muñ dëkk mooy tax nga yëgg fa moo tax il faut nga yëgg fa sa diggante ak sa jabar sa diggante ak say xarit sa diggante ak say mbokk sa diggante ak say dëkkandoo parce que ñii ñoo war a jiitu ci sabab ñii ñooy ñi nga xamante ne ak luñ la manti def dangay gis nga xamante jabar mën na sa jabar mën na laa def lu metti lu ne wax ci sa kaw lu metti lu ne waaye yow booy wax ci moom wala ngay def da doon ko rafet yàq na sa der yow tam boo war ko yàq dara ko def parce que illa la dina sabar wa maa yulaqqaahaa illaa zuu hazzin aziim yàlla nee na ku yàlla cërale ku am sax dëgg ci yàlla dina ko yóbbu yëg ci màttal wa imma bu dee xew na yan saxan naka mu dal di ñëw xoñoñal mina seytaane ci seytaane nas ko du maanaam seytaane bu ñëwee dugal nag mer wala xoñoñal wala xol bu tàng parce que nit ñi dañ koy dégg waaw alayhi salaatu wasalaam man mustaghniba fa lam yartab fa huwa imaam man mustagna fa ci yow ba nga xamante ne waaja def na la rek nga dal di mel ba ci saase yow ci sa bopp la nekkoon ci sa biir xol bi parce que moo tax nit di koy wax naan la nit di wóor te dem di yàq xolu nit am na yoo xam ne moom mooy def nit ki ci métti na rek mën na dem di xolam yàq moom mooy tur yërmaan si ko amati façon boobu nag la la yàlla def bu dee def mu la bugg a dal fa imma yanzaga mina cheytaani nasxu nga bugg a mer bugg a feye ko diw sàngam mu lay saaga mu lay def lu ñaaw mu nga wax ci sa kaw lu ñaaw nga dem ba bugg a bu mer bu nga moom yonent bi toog Abu ne lu mu wax ko ci kaw yonent bi di muum te waaye mu ngi ñëw wax lu ñaaw rek ci kaw Abu xol bi jox xol bi dal di jóg ne seytaan yi nas moo tax saa yi soo yeggee ne sa xol jóg na rek musul ci seytaan xam ne seytaan parce que yàlla moom foofu du du ñëw ci dafay génn ba amoo bakri xol ba jógee mu mel rek dal di jékkati kàddu yu ñaaw itam delloo ko waaj yonente bi mel ba bët yi dal di xokk cooy mu dal di jóg dem seen naa bu bakri topp ko ne ko yaa rasulallah yow dafa mel ni yow yaay sama xarit wala xarit waa jiw parce que waa jëm wax ci man lu ñaaw yëpp moom ñu leen ci kontaan man ba ma fayee ko su mer jox mu ne parce que jamono yooyu nga xamante ne yaa ngi muñ dama gis malaayka yi ànd ak yow ba gis yërmande yàlla ma kontaan parce que yërmande yàlla waaye mu ne xamante ne sa xol jox na rek yàlla déggal malaayka yi déggal mu ne jamono yi noonu leen dem commencé di wàcc ci sa kaw lii moo tax ko jóg hmm. kon ki lay def lu la koy wax bu sa xol dina feyeeku hmm. gis nga bés boo feyeekoo rek bu boobaa bu ma ci mooy fay hmm. xam nga lan mooy point bi gën a dëgër point bi point bi nga xamante ne mooy point fort mooy nga toogee ci jotaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mer ba bëti xom bi coy yonent bi ne am na baat boo xamante ne bu ko waxoon rek nee na seytaane bii ànd ak moom bi dina ko bàyyi ñu ne mooy mu ne mooy awxas billahi mina seytaane rek gaa yi jotte ko xoolal foofu yonent bi nga bëggul waaw parce que mer boobu noonu mer bu waxee ak moom rek mën na tontu yonent bi tontu boo xamante ne mën na caa yàq hmm. ñu jël kàddu ba jottali maa ngi woon day ne seytaan ne man seytaan ala seytaan ko def hmm. bañ di ko wax mujj naa def musiba ba tey dem dara bañ ko laajee ne ko woon ñu dañuy ko laa tax a naka janna kon saa yu soo yeggee hmm. koo xamante ne def na hmm. wax na ko xeetu mel la boo ko yëgee ci rek innahu ndax moom yàlla huwa mooy mu ngi déglu kàddu yi surtout boo mere moo tax boo mere bàyyi xel li ngay wax mer bokk na ci li gën a mën a moo tax mu rey mer jigéen bi taxaw wax ci la ma sama baat dañu may ko baax dama tas sa yam dëkkale ko njabootam rek la ko ca fekk yëpp dan na ko war maire ki jël leetar bind ci démission ko jox ko directeur wala ba te ko di ñaan ñaani ndimbal lan moo ko ko def maire bés boo réac defee réaction rek ci maire mu indi la rëccute moo tax yéen tamit sala sala ne boo meree bu la yàgg di i alayhi salaatu wasalaam mu ne boo meree bul wax Moussa Gueye Moussa Gueye nga waxee ci mel ne bu ma saagaatee xam nga ne bii bi maanaam nit bu waxee mel rek dañu dégg fa waxee moo tax yàlla indi laa du seen yàlla nee na dégg naa kon balaa ngay mer di wax na nga xam ne yàlla mu lay njëkk a dégg balaa nga ñu nga ne ñu fay si ba tey kon ne ko doon mu ngi ay fan ci kër ga bu mu defee lu tuuti lii rek nga attaqué ci lii nii defe ni nii tax hmm. la ca dem loolu parce que da ngaa toog ne wax na nga toog dee benn rek dañu am ñu koy denc ñaari fan bu ne dinañ ko na ñoo ñeme nañu denc mer nag fukki da nga gis kooku loolu léegi mu nettali la la mu a am na ñoo fa demee bu baax moo tax waaye boo ñëwee ci góor gi dafa ne at sangam gi ne na ko mën a téye at sangam ndax bi bi parce que nit war na fexe balaa dugg ci banque bi gis na mer gis na diisaay moo tax balaa ngay ci bal bi yóbbaale mer fexe ba dindi moo tax ci boppam njëkk a utilisé ñaar as-samiu mooy muy moo xam na li tax nga mer nit ñi mën nañu ñàkk xam li tax nga mer waaye yàlla ne na xam na li tax nga mer léegi nag am na yoo xamante ne buñ la laajee waaw lan ma lan moo tax nga mer ñëwoo ko wax parce que bés boo waxee li tax nga mer ñu xeeb la ci wala déet da na daje ci jabar muy ngoro ngay ngoro mu nangu ko ci sa loolu la xam nga sëy boobu noonu dafa am problème wax ci boo moytuwul nga wax ci musiba lu tax lu tax lu yàlla bay na bay na ko bay na waaye ka ànd wali day def xas na ko njëriñ sa bopp bés boo ciy wax bu ëllëgee na nga ci wax lu rafet waaw wala waaye bu ci teg kat war bu ñaaw bu ëllëgee bés bu demee ba say ba tax bu wax ndokk loolu moo ko ci mën a def parce que def naa suuf ci suuf wala de yooyu bu ko wax yooyu la lay wax bés bu taxawee nga am ak moom histoire te fekk lam la defoon mooy jabar-jabar nangoon ci sa loxo la ngay ñëw toog nga ñëw toog lu tuuti rek jox ma biskit jox naa la biskit hmm. nga mere ci ba génnee jaas est-ce que ñeme naa wax ne hmm. moo tax léegi ñuy laaj doo ñemee wax li ngay a maanaam li boo waxee li tax nga mer rek ñëpp xeeb la yàlla nee nag man nga tax nga mer nag man xam naa ko de bëgguloon nit ñi xeeb la mais nangu la wax la mer yooyu yaa ngi bëgg a taxaw rek jox ma ci mbisi bi jox ma ci taxaw loolu moo tax nga mer leneen moo tax nga meloon yàlla nag ne kon xam naa li tax nga mel est-ce que lañ ko doon gis mu bu ñuy uñ ñi wax na yàlla yonente bi di doon mën lu dul ne dañu ñàkk yàlla xorom hmm. sallallahu alayhi wa sallam masalan keroog boo xamante ne ñu ngi war a balagha musa ma ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah ci kilifa ak ñu jàpp la ko yow yeneen bi dafa mer ba fi nit baatam yi taxaw mu ji ko ci ko tey ngeen di daw ba kon foofu ñàkk mer dafa am yoo xamante ne ñàkk naa mer am yoo xamante ne jarul mer parce que bu fekkee ne loo xamante ne ci wàllu charia la lu won bu ñaaw war nañu mer xeex ko ba dindi ko waaye loo xamante ne nag sa intérêt yi woowu la wala yu suufe la yooyu moom war ñu ciy def moo tax ñu ne la yeneen bi masul feeyeeku boppam ak loo ko mën di def jéggal naa la la jiite lu dul nag ñu ñàkkee yàlla orma illaa ida uxrikat lillahi orma ñu uññee orma yàlla nag yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam kon fa imma yanzaxannaka bés bu la duggee min acheytaani nasaxum seytaane moom moo yëkk yëngal sa xol bi mer loo xam ne nga ñëkk fasta'id billahi muslul ci yàlla innahu gis na mu yàlla wa samiu mooy dégg lépp looy wax même liy bax ci biir xel bi sax liy bax ci biir xel bi sax waaw liy bax ci da ngay gis koo xam ne mën na sax gaaw a mer am ñoo xam ne dañuy fàtte mer yooyu yëpp ay erreur la en tant que jullit li ko raw ci yàlla mu gaaw ci na koo gaaw a mer te bu bañ na koo xam ne dafay gaaw a mer te du gaaw a wàcc yàlla gërëm na a mer te gaaw a wàcc waaye yàlla gërëmul ki nga xamante ne dafay gaaw a mer wóor la de même moom nag nga ñàkk a de waaye da ngay xam ne tax day mer bu dee sa jabar julli na wala julliwul mën naa tax mer laaj na ko jar na ndax si Amada Tijaani am na ku bu jigéen julli mu rafet ko laajee si Amada Tijaani mu dafa julli kon naa mer hmm. waaye bu dee dafa toog xorom bu ëpp dafa bu dee dafa toog kaane bi ko yàlla fut ko mu nga def sànq wax te lan la nga def xorom baax xorom baax mu mel ne war a toog à terre war boobu ndax kii mën waaye bu fekkee ne jógal dem julli la mu sol la dara ni maanaam si lay mere ku dul mer du nit du mer du nit mer lenn fu mu am ci nit hmm. waaye da seet lan moo war a tax nga mer lii war a tax nga mer mooy ci li yàlla ati li ma fekkee ne julli mën ngaa mer ba hmm. waaye su fekkee ne gis nga ko yu suufee suufee yu law yooyu noonu dañ la toggal ataaya façon yooyu noonu wala dafa tardé bu boobaa sa yow sa xam ne yii kenn waru koo fooy waaye lu xew nga mer lu xew nga mer dañuy dem bay miin sa mer te ku yàpp sa xulóon yàpp ku miin sa xulóon yàpp kon fexeel en tant que kilifa saa yi sooy mer na doon mer boo xamante ne jàpp ko même ki nga xamante ne mooy chef de la région mooy kilifa bi président wala wala muy mer boo demee ci ni ñuy falee kilifa moo xam ci directeur de l'antenne danga joxe la ne moom mooy sax kii seega ñu xool bokk na ca ni ñuy kilifa pour fal est-ce que day neex mm. est-ce bu dee bu gaaw a fase naa ko def sa doom mer naa rek génnal sama kër ko def sa xarit mer naa rek na fi yem ko def boo ko defee rek di léegi dañu rëccu moo tax nga dee saa soo yëgee mer ci sa ci sa biir xol bi rek mosul ci yàlla wax bi day na shaytaan wax bi day na shaytaan wax bi day na shaytaan rajim dina xam moo tax mu ne la wa min ayaati foofu la kon fa imma yanzaghannaka mina shaytaani nafahun fasta'iz billahi muslim ci yàlla innahu moom yàlla as-samii'u mooy kiy dégg